yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu ñeent fukkeelu njàngale mi ak juróom ñett daaj nañu yeesu ci bant nanu bamtu nettali yi weesu benn lu tax sëriñ yi bëggoon reylu yeesu sëriñ yi bëggoon nañu seen diine ak seen santaane rekk taxaw bëgguñu woon ñàkk seen kilifteef te itam dañu añaane woon yeesu ak di ko siis ñaar ndax yéesu tooñ na déedéet ñett lan la yéesu tontu bi ñu ko laajee ndax mooy set bi yàlla dige ak ndax mooy doomu yàlla yéesu dafa leen tontu ne moom la ñeent lu tax sëriñ bu mag bi wax ne war nañu rey yéesu sëriñ bi nee na Yeesu weddi yàlla bi mu nee mooy doomu yàlla juróom lu tax yuda sànni xaalis ba ba noppi xaru yuda xamoon na ne bàkkaar na te xamoon na it ne yeesu tooñul te bàkkaarul mbind mu sell mi nee na ci mark saar fukk ak juróom aaya fanweer ñett ba aaya fanweer juróom-ñeent li tàmbalee digg bëccëg ba ci tisbaar réew mépp lëndëm ci tisbaar nag yeesu woote kàddu gu dëgër naan elowi elowi lama tani liy tekki sama yàlla sama yàlla lu tax nga dëddu ma ñenn ci ñi fa taxaw nag bi ñu ko déggee ñu ne mu ngi woo yonent yàlla Ilias noonu kenn daw jël aw sagar jàpp ko ci bineegar mu teg ko ci bant jox ko mu muucu mu ne bàyyi leen nu seet ba xam dina ñëw wàccee ko noonu yéesu wootewaat ak kàddu gu dëgër delloo ruwam yàlla bi mu ko defee rido bërëb bu sell ba ca kër yàlla ga xar ñaar di dale ci kaw ba ci suuf njiitu xare nag bi taxawoon ci kanamu yéesu bi mu gisee ni yeesu dee mu ne ci dëgg nit ki doomu yàlla la bu leen fàtte ràññee melukaani yàlla yi ci nettali bi daaj nañu yéesu ci bant nettali bi mu ngi aju ci bi ñu daajee yeesu ci bant gannaaw bi ñu jàppee yeesu ci suba teel njiitu yawut yi yéesu yeesu teg tooñ ñu yóbbu ci pilaat boroom réew ma ndaxte amuñu woon sañ-sañu rey ko pilaat laaj lan la yéesu def sëriñ yi yéesu ci lu bare ñu jiñ yeesu ne dafay xiir nit ñi ci ñu dégg dil nguur gi waaye yéesu tontuwu leen yonent yàlla esayi waxoon na lu jiitu luy ne almasi bi du wax dara ci kanamu ñi koy tuumaal dina mel ni ki mu ñu yóbbu ca rendikaay ba noonu pilaat laaj yeesu ndax yaay buuru yawut yi yeesu wax pilaat ne nguuram du ci àddina si pilaat ne kon buur nga yeesu tontu ko waaw wax nga ko pilaat wax nit ñi gisuma benn tooñ ci nit ki njiitu yawut yi dëgër ci ne yéesu dafay xiir nit ñi ci ñu dégg dil nguur gi noonu pilaat yónnee yeesu ci erod njiitu diwaanu galile booba fekkoon na erod mu ngi woon ci yerusalem erod laaj yéesu waaye yeesu tontuwu ko noonu erod delloo yéesu ca pilaat yawut at mu nekk baaxoo nañu di baal kenn ci ñu jàppoon ngir mu génn kaso noonu pilaat wax leen ñu baal yéesu waaye sëriñ yu mag ya xamb nit ñi ñu yuuxu naan bu ñu baal yeesu nañu baal barabaas barabaas moomu ab reykatu nit la woon ak taskatu réew noonu pilaat dóor lu yéesu ay yar kat ya defar ab kaala dég solal ko yéesu ñu xotti ay yéreem solal ko mbub mu xonq cuur ñu di ko dóor ci bopp ak bant di ko tëfli ak di ko mbéj ñu koy ñaawal naan ko màggal nañu la yow buuru yawudi noonu Pilaat waxaat mbooloo ma gisuma benn tooñ ci moom nit ñu yuuxu naan daaj ko ci bant daaj ko ci bant noonu Pilaat jël ndox raxas ay loxoom ci kanamu mbooloo ma mu ne leen seet naa ci deretu ku jub kii mbooloo ma tontu na deretam dal ci sunu kaw ak sunu kaw njaboot noonu Pilaat jébbal yéesu Yeesu ñu gàdduloo ko ab bant jiital ko ngir daaj ko ci bant bi waaye yeesu amul woon doole ndax dóor yi ñu gàdduloo bant bi keneen mbooloo mu mag topp leen jigéen ña topp cay jooy ñu yóbbu yéesu ci ab tund bu ñuy wax golgota ci gannaaw yerusalem booba juróom-ñeenti waxtu ci suba moo jot xarekat yi daaj ay loxoom ak ay tànkam ci bant bi ñu teg ci kaw boppam mbind mu naan kii mooy yéesu buur yawut yi loolu ñu tegoo bant ay yéreem ngir séddoo ko yonent yàlla daawuda waxoon na ci saboor nan mbooloom ban bon darma kepp ñu bëtt samay loxo ak samay tànk samay yax yépp ñu ngi ne fàng nit ñi di ma seetaan ànd ci ak mbég ñu séddoo samay yére tegoo ay bant sama col ñu daj itam ñaari taskati réew ci bant ñu seq yeesu yonent yàlla esayi waxoon na ko lu jiitu loolu nee na ndaxte jébbale na bakkanam ba dee te ñu boole ko ca limub ñu bon ña ndaxte yenu na bàkkaari ñu bare te ñu tooñ ci bant bi ñu ko daaj yeesu ñaan na ne bay baal leen ndaxte xamuñu li ñuy def ñaawal ko naan musal na ay nit kon na musal boppam kenn ci sàcc yi ñu daajoon ci bant ne yeesu fàttaliku ma boo dellu soo ci sa nguur yeesu tontu ko ne ci dëgg maa ngi la koy wax tey jii dinga nga texe ak man ca jataayu yàlla yaayu yéesu mu ngi taxawoon ci wetu bant bi ñu daaj yéesu yéesu gis ko moom ak taalibeem bi mu bëgg ni rakkam mu ne ko soxna si kii mooy sa doom mu ne taalibe bi kii mooy sa yaay noonu la taalibe bi yóbboo Mariama yaay yéesu mu dëkk ak moom fukki waxtu ak ñaar jot réew mépp lëndëm mu lëndëm ba ci ñetti waxtu ci ngoon noonu yéesu yuuxu ci kaw ne sama yàlla sama yàlla lu tax nga dëddu ma yéesu xamoon na ne lépp lu yeneen yi waxoon mat na mu ne dama mar ñu jox ko ab sagar bu ñu tooyal ci bineegar bi mu naanee ba noppi yeesu ne lépp mat na noonu mu woote ci kaw ne baay jëbal naa la sama ruu noonu mu sëgg delloo ruwam yàlla te saa soosu kër yàlla ga daldi xottiku ci kaw ba ci suuf def ñaar suuf si yëngu xeer yi toj ay bàmmeel ubbiku ay nit yàlla yu bare dekki ñu doon wattu yeesu tiit lool te naan ci dëgg ki doomu yàlla la ci aada yawut yi daawuñu daaj kenn ci bésu noflaay bi te fekk ca ëllëg sa la woon bésu bi looloo tax xarekat yi dem tànk ñaari sàcc yi ngir ñu gaaw a dee bi ñu agsee ci yéesu ñu gis ne saay na ba noppi looloo tax damuñu ay tànkam yonent yàlla daawuda waxoon na ne day wattu xam yépp ba benn du ci damm waaye benn xarekat jam yéesu ci wet ak xeejam noonu deret ak ndox tuuru waaye deret bi ak ndox mi ànduñu woon loolu wone woon na ne yeesu saay na ba noppi yonent yàlla sakariya waxoon na itam ne te dinañu wëlbatiku xool ci man ki ñu jam benn yawut bu ñuy wax yuusufa te nekkoon kilifa ñaan pilaat mu jox ko néew bi ngir mu suul ko pilaat may ko loolu noonu yuusufa ak nikodem farisiyen ba seeti woon yeesu genn guddi jël néew bi ñu defar néew bi laxas ko ñu dugal néew bi ci ab bu ñu yett ciw doj te mësuñu ci woon denc kenn yonent yàlla esayi waxoon na ne suul nañu ko ci biir ñu bon ña rob ko ak ku bari alal fekkoon na ba su baa ngi ñëw ñu tëj bàmmeel ba ak aw doj wu mag ay jigéen xamoon nañu fi ñu dencoon néew bi ñu dellu seeni kër ngir defar cuuraay ak lat koloñ ngir néew bi waaye ñu noppalu ci bésu noflaay bi ni ko yoon santaane fii la nettali bi yem am naa ay laaj benn bi yawut yi demee ci pilaat lan lañu jiiñ yéesu dañu ko jiiñ ne mu ngi xiir nit ñi ñu dégg jël nguur gi ñaar bi pilaat ne kon buur nga lu ko yéesu tontu yéesu dafa ko tontu waaw wax nga ko ñett lu yawut yi def bi Pilaat ne dafay bàyyi yéesu dañu xaatu ne ñu bay Barabaas ab reykatu nit te daaj Yesu ci bant ñeent lan lañu def yéesu laata ñu koy daaj ci bant solal nañu ko mbubb mu xonq cur solal nañu ko kaala dég dóor nañu ko ci bopp ak bant tëfli nañu ko ñaawal nañu ko mel ne ñu koy màggal juróom lan lañu kaal ak dëgg di fàttali mu ngi ñuy fàttali moolu bi yàlla moolu woon suuf si ndax bakaaru aadama juróom benn fan lañu daaje yeesu ci bant ci gannaaw yerusalem ci kaw aw tund wu ñuy wax golgota juróom ñaar lana daawuda bind ci mbirum loxoy sët bi yàlla digee ak tànkam dinañu leen bënn daañu pont ay loxoom ak ay tànkam juróom ñett lu yéesu wax gannaaw bi ñu ko dajee ci bant yéesu ñaan na ne baay baal leen ndaxte xamuñu li ñuy def juróom-ñeent lan la kenn ci sàcc yi ñaan yéesu fàttaliku boo dellusee ci sa nguur fukk lu ko tontu te loolu lan la ñuy won ci yéesu yéesu dafa ne tey jii di nga texe ak man ca jataayu yàlla loolu wane na ne yeesu mooy yàlla fukk benn lu tax mu lëndëm ñetti waxtu ganaaw bi ñu daajee yéesu ci bant màndarga la woon ngir wan nu ne yeesu fayal nanu sunuy bàkkaar ci waxtu yooyu yéesu teqalikoo na ak yàlla ngir dékku sunuy bàkkaar fukk ak ñaar lan la wax bi mu ne lépp mat na yeesu wax na foofu ne def na lépp li ko baayam santoon nangu na mbugalu dee ngir fay sunuy bàkkaar yéesu musal nanu ci mbugalu seytaane bàkkaar ak dee fukk ak ñett lan la yeesu yuuxu bi muy dee baay jébbal naa la sama ruu fukk ak ñeent lan lañu deewu yeesu di won ci ay mbiram won nanu ne yéesu nit la woon itam fukk ak juróom naka la xarekat yi xamee ne yeesu saay na benn xarekat jam na yéesu ci wet ak xeejam noonu deret ak ndox tuuru waaye deret bi ak ndox mi ànduñu woon loolu wone woon na ne yéesu saay na ba noppi fukk ak juróom benn lu tax yàlla xotti rido bi ci kër yàlla ga ci kaw ba ci suuf wane na foofu ne nangu na pey gi yéesu fey sunuy bàkkaar kon jaratul ñuy rey ay xar ngir sunuy bàkkaar wane na foofu itam ne jaratul ñuy jaar ci sëriñ yi wala ci kenn lu moy yéesu ngir ñëw ci moom fukk ak juróom ñaar lu tax ngeen gëm ne yéesu ci boppam moo de ci bant bi ci dëgg ndaxte yaayam ak ay taalibeem ñu nga fa woon xammee nañu xar kanamam ak baatam fukk ak juróom-ñett lan moo waral deewu yéesu mbind mu sell nee na ndaxte yàlla dafa bëgg àddina ba joxe jeneen doomam ji mu am képp ngir képp ku ko gëm am dund gu dul jeex te doo sànku mukk dee ngir sunuy bàkkaar doon na sarax bi mat sëkk moom rekk mooy ki amul bàkkaar ku mën a fay sunuy bakaar ngir ñu mën a taxaw fa kanam yàlla fu ak juróom-ñeent bu doon ne keneen dafa wuutu yéesu ca bant ba loolu lu muy tekki ci nun kon sunuy bàkkaar kenn feyeesu ko sarax bu amul bàkkaar rekk moo mën a fay sunuy bàkkaar ñaar lu ñu def ak néewu yéesu yusufa ak nikodem jël nañu néew bi defar nañu néew bi laxas ko denc ko ci bàmmeel bu bees yan melokaani yàlla lañu gis ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe yàlla lu mu dige def ko yàlla fàttewul li mu digoon aadama ak awane dina yónni set bi mu dige yéesu jaar na ci metit yu bare ngir matal kàddug yonent yi rey nañu yeesu ci lu dul dëgg waaye loolu matal na coobare yàlla gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yéesu dee na ngir sunuy bàkkaar fey na sunuy bàkkaar peyooru bàkkaar mooy dee yéesu feyal na képp ku ko gëm ay bàkkaaram yàlla dafa jub bi yeesu di saay dafa ne lépp mat na loolu mu ngi tekki ne yéesu fey na bàkkaar yépp ba mu mat sëkk yàlla bëggul bàkkaar yàlla tànn na yeesu ngir mu dee ngir fay bàkkaari àddina bi yàlla safee yeesu bàkkaari àddina sépp dafa koo dëddu ci waxtu yooyu ba payoor bàkkaar yépp mat réew ma dafa lëndëmoon kurus ndaxte yàlla bëggul gis benn bàkkaar ci kanamam looloo tax yéesu yuuxu ne sama yàlla sama yàlla lu tax nga dëddu ma beneen yoon dinañu waxtaan ci mbirum ndekkiteel yéesu